qualification nan ngeen ko dundee qualification bi second tour. non est-ce que moom kontaan nañ trop mais voilà comme ni nga xamee ñun dañuy jëm continuer jëm sa kanam rek boo xam ne waa Sénégal yëpp kontaan nañ ñun tamit kontaan nañ te ñaan yàlla mu may ñu yéen a marché bi génn ci dugg si bismillah rahmaan rahim te génn ci alhamdulilah rabbil alamin voilà. daal kontaan nañ daal waaw. non parce que dañ nekk si presse di wax leen neex xam lu toll l'équipe nationale du Sénégal Zimbabwe même si on respecte beaucoup nous on les a beaucoup respect et c'était important pour nous de de moom dafa amoon solo si ñun. wan ni voilà ñun euh, Sénégal lañ teg kenn du ñëpp. différence bi euh, match bi parce que li mu abouti par rapport ak Tunisie yàgg gagné leen mais ñun ñu dem tiitoon. waaw c'est normal parce que euh, gagné woon nañ mais football noonu liñ waree footballé dañoo amoon envie def bu baax moo tax xam naa ñu crispé di perdre bal yu bëri voilà. match boobu tey moo ñu may qualification bi mën nañ ko wax parce que moo ñu mel moo ñu permettre ñu jël confiance pour mën a gagner bi match bi. ay tarif yëpp wane ko seen tour loolu dafa amoon solo trop si ñun daal dañuy ñaan yàlla daal mu may ñu wér gu yaram ak wér ñu ngi remercier waa ñu ngi gërëm waa Sénégal yëpp di leen nuyu di leen di leen dégg. prochain objectif génn nañu premier tour. des na benn match déjà contre Algérie dañ koy jéem a gagné après prochain tour ñu continuer comme ni ñu ko defee rek liggéey jéem a def ñu tànn jërëjëf sécurité pour nous.